bokk na ci sunna yi booy bëgg a lekk wax bismillahi booy bëgg a naan wax bismillahi te bañ caa boole nag arrahman arrahim na nga yem rek ci bismillahi ci wax jiñ gën a sukkandikoo wa tahmidu ak sant ga yàlla hindal intihaayi fa noppi ga sopp nañu boo lekkee ba noppi wala boo naanee ba noppi nga sant yàlla man nga ne alhamdulillahi rabbil alamin man nga ne alhamdulillahi hamdan kathiran tayiban mubarakan fii wa yakulu dana lekk wa yashrabu te muy naan bi yaminihi ci day jooram bokk na ci sunna te it bokk na ci tekki ni lekk ak naan booy lekk mbaa ngay naan nga defe ko sa loxom ndeyjoor moytu koo defe ab càmmooñ wala yan fuxu te duwal fi taxaami ci ñam wa wa sharaabi ak naan nga la ngay lekk mbaa la ngay naan nanga ko moytoo ëf ci sa gémmiñ lu ñu sib la sib nañu ngay ëf lekk ga mbaa naan nga ndax dañuy bañ nee nañu dara bàyyi ko ci sa gémmiñ dem ca nga seexlu koo lekk xëy na keneen tam seexlu koo lekk woowu ñam daal di yàqu wala bu dee naan wooga naan daal di yàqu wala yatanafasu du noyyi fil inaay ca ndab la dañoo bëgg nag boo dee naan boo bëgg a noyyi nga toppale pot bi noyyi dellu naanaat lañ si gën a taamu sax mooy nga def ko yetti yoon naan ba yàgg nga bàyyi pot bi noyyi dellu naanaat ba yàgg nga yàbbi pot bi noyyi def ko ba mu ñetti yoon daal loolu taamu nañ ko wala ba sa ayut bishur bi ca naan nga xaa iman ngir mu ngi aji taxaw di naan taxaw nag ayut waaye nee nañu àgg suuf toog boo dee naan moo gën waaye nag taxaw naan itam ayut wa yaxrumu dana araam xalal rijaali ci góor ña lubsul xariiri sol sooy wal julóos ak toog xale yi ci sooy wat taxatuma ak jaarowoo bi dahabi ci wurus wa bi ma ak ci loo xam ne fii nekk na ci moom dahabun wurus góor day araam ci moom sooy bu sell ba nga xam ne bu piire la muy bu cosaan ba mu di ko sol mbaa mu ciy tëdd mbaa mu koy sàngoo jigéen nag moom mën na ko ba tey góor du saña wut benn takkaay ci wurus niki ab jaaro mbaab lam mbaa ceen mbaa dara te jigéen nag moom lépp lu ñuy takkaayoo ci wurus ak xaalis rek mën na ko caa takkaayoo ba ci sooy me itam luñ cee jëfandikoo rek mën na ko caa jëfandikoo ndax yonente bi moo leeraloon ne yaar yi muy sooy ak wurus suñu borom da ko araamal ci ñu nekk ay góor ci aw xeetam te daganal ko ci ñu nekk jigéen ci aw xeetam nga xam ne kon doo sañ a takk jaaro boo xam ne wurus la yow góor gi wala jaaro boo xam ne lenn la day wurus leneen la bañ a nekk wurus góor daal lim sañ mooy takk benn jaaro boo xam ne xaalis lay doon te it lu mu diis diis na ko wóor ne wër ta mat juróom benni ngaraam ndax dañ koy takk ci diisaayu ñaari dërëmu yoon te benn dërëmu yoon manqué na ñetti ngaraam lu tolloog vingt cinq milligramme ba tey nag takk jaarob weñ gu ñuul wala përëm moom dañ ko sib moo xam ci góor la moo xam ci jigéen la moom ci ñépp lañu ko sib muñ sañoon daal kenn du takk jaaro weñ gu ñuul mbaa jaaro përëm wa yustahab bu def na sopp ay yabda mu jëkke fii lub si na alihi ci sol dàllam wa bil yum naa ca ndeyjoor ba wa fii xalxihi ci summeem ga bil yusaa ca càmmooñ ba sopp nañu booy sol lu mel ne aw dàll walay bot walay kawas mbaa tubéy nga jëkk sol tànkum ndeyjoor mujjee sol tànkub càmmooñ te booy summi nag nga njëkk summi tànkub càmmooñ mujjee tànkum ndeyjoor nga xam ne kon lépp luy xeetu teraanga rek moom sopp nañ ndeyjoor ba jiitu ca càmmoñ ba mujj ca lépp loo xam nag moom du xeetu teraanga ñi ki dugg ca wana wa ñu bëgg càmmoñ ba jiitu ca te boo dee génn ndeyjoor ba jiitu ca génn ga wala yam sii du dox fii naalin ciw dàll waaxid mu di wenn wala yaqifu te du taxaw fii ci moom illa li darooratin ndare ngir lor maanaam sib nañu nga sol wenn dàll rek di dem ak moom bañ caa boole weneen sib nañu tam nga sol wenn dàll rek taxaw noonu te demoo moom daal dañ nu ko aaye sib nañ ko wa yaxrumu dana araam allah bu foye bi chatran ji ci chatran ji chatran ji am polo moo xam ne mel na ne yàgg na ci waa Faris yi waa Iran yi waaye dañuy araamal ku ko foye am nañu ne moo xam dañ caa boole bu teg ku dàq jël ko wala boolewuñ ca bu teg du ko tee araam am ñu ne buñ ca boolee bu teg daal lay araam waaye buñ ca boolewul ab teg moom lu ñu sib képp lay doon wa yaxrumu dana araam ak taswiru dessin wala photo xalaa sifatil insaani ci melaw nit aw xëyrihi wala lu bokkut ak moom minal xayawaanaati ci xeeti rab yi daa ab addis bu wax ne bu bis pencee ñuy gën a metti li mbugal mooy ña daan dessin ku daa dessin dañ koy wax ne ko jëmm ji nga dessin woon sol ci ruu te du ci mën a sol ak ruu foofu nag aajoo na teqale bu baax saye boo takk rek ne lépp loo xam ne amul ak ruu ni ki garab wala oto wala saxaar wala kaaba ga lépp lu yàlla sàkk te amul ak ruu rek moom mën nga koo photo mën nga koo dessin mën nga koo def jëmmi estati mu def jëmm ju ne léng taxaw ak boppam du wàññi dara mu des nag loo xam ne lu yàlla sàkk la te am ruu ni ki doomi aadama ak lépp lu yàlla sàkk rek te am ruu lu mel noonu nga xam ne jëmm ji rek nga photo ci appareil teg ko ne wax ji gën a wóor mooy moom araamut rawante na niñ ko yittewoo lool ci doxinu àdduna ci dentité yeeg visa yeeg yuy demee noonu ndax loolu jiimu laa roy yàlla ci defar lam defaroon jëmm ji yàlla defaroon rek moom nga am jumtukaay boo ko mën a génnee jëmm ja wane nga génnee jëmm ja wane mu des nag loo xam ne dangaa jël sa loxo di ko dessin ba mu nuru jëmm ji yàlla defar te mu am guroo kooku nag dañ koy teqale yaar bu fekkee da nga koo dessin ci ab miir wala jiw kayit nga xam ne nekkul jëmm ju ne léegi kon sib nañ ko mooy la nga def bayan ngaa def moo gën te sax bañ koy sib mooy bu fekkee da nga koo def ci lu mel ni miir wala ci plafond bi ñu koy xool di ko seetaan te sax bu fekkee da nga koo dessin ci tapis bi ñu koy dëgg di dem ak dikk mbaa nga dessin ko ci photo yi bi ñu ciy toog mbaa ci kaw lal ba ñu ciy tëdd moom deesu ko sib mu des nag benn boo xam ne moom ci lañ maase ci ne araam na ci tëkku bii addis bi wax ci la jëm loolu mooy jëmm ju amul ruu nga liggéey ko ba mu def estati bu mën a taxaw ak boppam ne ki nga defar jëmmi doomi aadama ji mat sëkk def ko estati bu ne leen mën a taxaw mbaa lu mel ne am xar mbaa ganaar mbaa bëy mbaa leneen lu amul rek nga defar ko ba mu nekk estati bu taxaw jonn mën a ànd moom dong mën koo teg ci taabal mbaa mën koo teg ci suuf mu taxaw lu mel noonu moom maasi nañ ci ne mooy la araam te tëkku boobu ci la jëm am na yenn xeeti estati yoo xam ne niñ koy liggéeyee léegi du bokk ci yu araam yi ndax dañ koy defar boo ne ko jàkk ne di ko séen ca kaw montar ba mbaa kaw taabal ja mu mel ne jëmm ju mat la te fekk na benn xaaj bi rek lañu andi xaaj bi ci des andiwuñ ko loolu nag moom du araam balaa araam rek jëmb ji lépp ñëw benn cër bañ caa manqué ba noppi nag mu def esthétique bu ne léng mën a taxaw ak boppam faslun li ab dog la al ibtidaau tàmbalee wala jëkke bi salaami ci nuyoo sunnatun sunna la wa radduhu ak delloom mbaa nga ne ak fayam fardu kifaayatin fardu kifaaya la njëkk a nuyu nit sunna la waaye nag sunnas kifaaya la mooy ñaar mbaa ñett ci kenn rek nuyoo doy na ba tey fay ab nuyoo fardu kifaaya la ndax ñaar mbaa ñett buñ leen nuyoo bu ca kenn rek fayee ñoom ñëpp mel na ne fay nañ nuyoo ba waaye nag ñoom ñëpp bu ca kenn fayut nuyoo ba rek ñu bokk am bakkaar ndax fay ga nuyoo ba moom fardu kifaaya la wasifatuhu aw meloom nag añ yaqoola moo di bu waxee almubtadiw aju jëkke ja ne assalaamu jàmm yàlla aleykum yàlla nekk ci yéen aw wala mu ne salaamun jàmm yàlla aleykum yàlla nekk ci yéen wa yaqoola tey wax arraddu aji delloo ja te mooy aji fay ja ne wa aleykum yàlla nekk ci yéen it assalaamu jàmm aw wala mu ne assalaamu jàmm yàlla aleykum yàlla nekk ci yéen nuyoo ci lislaam nag mooy ki nga xam ne mooy njëkk a nuyoo day wax asalaamualeykum taara ko te looloo gën mbaa mu ne salaamun aleykum bañ a taara salaam ji loolu ba tey baax na kay fay nuyoo ba nag daal di ko ne wa aleykum salaam moom it noonaa ci gën waaye moom bu waxee asalaamualeykum rek nañ ko nuyoo woon ba tey mu baax waaye daal wa aleykum salaam ja moo gën wa yukrahu def na sib taqbilul yadi fóon ab loxo fi salaami ca nuyoo ba sib nañu ba ñu nuyoo kenn ka fóon loxol moroom ma mbaa mu fóon beneen cër ci ay cëram waaye nag lu may kooka kat day sa baay mbaa mu di ab sëriñ mbaa muy ku ñu yaakaare barke ci lislaam kon nee nañu deesu ko sib moo tax sara bi naa illa an yakuna aban aw cheikhan aw man turja barakatuhu fala basa bi dalik sib nañu nag nga jekki-jekki soli nit ak sa loxo te waxoo baati nuyoo yi loolu sib nañ ko ndax yonante bi dane woon bu leen nuru nurulu yahood yi ak nasaraan yi ndax yahood yi buñ dee nuyoo dañuy junj ak seeni baaraam nasaraan yi bu ñu nuyoo dañuy junj ak seen téng soo boolee yaar yëpp nag moom nga xam ne wax nga asalaamaaleykum ci sa làmmiñ boole ca nag junjaale ci sa loxo mbaa sa téng nag moom dara nekku ca wala yusallimu du nuyu ala ahlil ahwaay ci ñooñ bànneex ya kal mu'tasilati ni ki ñi ñu tudde al mu'tasila war rawafidi ak rawafid yi nee na nag bu fekkee ne ñooña ci waa lislaam sax lañ leen di boole waaye dañoo ñàkk rafet pas-pas ci lislaam te loolu ay kuréel yu bare bari la am na ci ñu tudd al mu'tasila am na ci ñu tudd arrawafid arrawafid moom dañuy ëpp farak al imaamu xali yi lool ba di xaw a manqué yeneen saxaaba yi ci des ñu bëgg nag ñooñu nga xam ne seen pas-pas daa wuuteeg ahlu sunna maanaam seen pas-pas daa wuuteeg da yonent bi nekk na ki gaayam rek nga bañ leen a nuyu xanaa jàmbu leen sori leen ndax ñu xat ba bàyyi lañ nekkoon te ñëw ci li yonent bi nekk nag gaayam yu baax yooyee wala xalaa ahlil lahwi du jaageenu ci ñooñ po xaala talabusihim ci waxtu seenu làmboo bi ci ca poma kalaa ibi shataran ji ni ki aji foye shataran ji nee na kuy foye pomu aay jamono ya muy foye pomu aay moomee dañuy bañ nga nuyu ko buñ ne sib la itam sibuk araamal lay doon wala yabda'u du jëkke ahla zimmati ñooñ walëre bi salaami ci nuyu ahlu zimma mooy ñi nga xam ne du ñu ay jullit danoo am ak ñoom wala rek ñu dund ci sunu biir ñooñu nag yow julit bi bul jekki-jekki njëkk leen a nuyu wa isaa bada oo ndem jëkki nañu nuyoo ba radda mu delloo xaleyhim ci ñoom bi xëyri waawin ci lu dul waaw bu fekkee ne ñoom ñoo la njëkk a nuyu nag soo leen dee fay saye boyam ci aleykum kese yam ci ndax nee nañu ñoom buñ masaaj nuyu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba ab julit dañuy wax assaamu aleykum bi assaamu ji firi dee di la ñaanal dee loolu lañ daan nuyoo yonante bi mbaa keneen ku gëm yàlla moom nee nañ am na ñenn ci yahoot yi masa ñëw ci yonante bi di ko nuyu naa ko assaamu aleyka di ko ñaanal dee yonante bi moom yom rek ci aleykum fekk soxna Aïcha moom dégg na ko soxna Aïcha ne leen wa aleykum saamu wala anatu yàlla na yàlla rey leen te rëbb leen yonent bi ne ko xaayisa noonu kat du defin yàlla daa bëgg mbir mu nekk nga ànd caag def ndànk akuk tey soxna Aysa ne ko xanaa déggoo liñ la wax xanaa déggoo ñu naa la assalaamu aleyka yàlla na nga dee yonent bi ne ko xam naa ko moo tax mu ne leen rek aleykum yem ci ma itam wala yu sannu deful sunnaal assalaamu nuyu xalal musalli ci aji julli kuy julli sunnaaluñu ku ko nuyu waaye mën nga ne rek sib nañu kuy julli nga di ko nuyu mbaa kuy dem wanag moo xam ak góor ak jigéen duñ dee jote ak kuy nodd ak kuy liqaam ak kuy nelaw akub dof ak ku màndi ak ndaw lu jigéen loo xam ne soo ko nuyoo mën na caa jaar cokkaas la ba ngeen amante ca ba lu yàlla bañ xew ca ak kuy lekk ak kuy naan ak kuy jàng alxuraan ak kuy ñaan yàlla ak kuy sikkar ñi ñëpp daal sib nañu nga nuyu ci kenn taamuñ nga nuyu ci kenn wa ida sallama ndéem nuyoo na waaxidun kenn minal jamaaxati ca mbooloo ma aj sa kon doy na xanhum walis ñoom wa kazalika naka noone ida radda ndéem delloo na mooy ndéem fay na rek waaxidun kenn minhum ci ñoom mbooloo bu ca kenn rek nuyoo dal nay doy ba tey mbooloo buñ leen nuyoo bu ca kenn rek fayee nuyoo ba dal nay doy ba yusallimu dana nuyu arraakibu aji war xalal maashi ci aji dox wal maashi aji dox itam xalal qaahidi ci aji jekki sopp nañu ñaar bu ñu tasee kee war kay dox ka war fexe ba njëkk a nuyu kay dox ndax war kam war daa xaw nuru daraja bu yeexee nag ba kee dox njëkk koo nuyu du gën ba tey yow mi dox ba agsi la gën mooy nga gaaw nuyu ka nga fekk mu toog ba tey sopp nañ gone fexe ba njëkk a nuyu mag te bañ a yeex ba mag di ko njëkk a nuyu wala ya juusu dagan li ahadin ñeel kenn an yaddu xola mu dugg xalaa ahadin ci kenn baytaxoo néegam ba xataa yesta atina mbate mu diisoo xale yi ci moom kenn sañ te dugg ci néegub jaambur te yëgluwoo njëkk da ngay nuyoo mbaa nga fëgg wa sifatuhu meloom wa añ yàqoola moo di mu wax assalaamu aleykum a adduxulu ndax danaa dugg wa yastasinu te muy diisoo salaasa ñetti yoon wala yasiidu te du dolli xalaa daalika ci loolee melaw diisoo bi mooy nga ne assalaamu aleykum ndax mën na maa jàll si wax ko yetti yoon boo waxee yetti yoon te wóor leen dégg nañ ko te tontuwuñ la nag saye ba wàññi ko xam ne kon dañoo bëggul ko ak ci ñoom ci yooye jamono nit ñu waxee melaw diisoo bi nag moom daa xaw a doy waar ndax asalaamaaleykum teg ca ndax mën na maa jàll si ah daa xaw a doy waar waaye xëy na ku yem rek ci asalaamaaleykum mu doy illa an yaxaliba ndare bu dafa not xala zannihi ci njortam xadamu samaahi ñàkk dégg ga boo yëgloo ca bunt ba yetti yoon nag waaye da ngaa jàpp ne rek dégguñu la kon man ngaa dolliwaat yëgluwaat waaye nag bu la wóoree ni moom yëg nañ la te néewuñu la jàll sil moom ni ko waxee woon rek say boo wàññiku su dee nag boroom néeg ba sañ ngaa gis awraam mu sañ a gis sa awra ni ki da ngay sëy ak moom kon bu la wóoree ni moom rek moo nekk ci néeg ba sañ ngaa jekki-jekki daal di dugg waaye nag bu fekkee wóoru la moom rek moo fa nekk kon doo sañ a duggute yëgluwoo wa ida stasana ndem diisoo na faqila te wax yes lahoo ñeel ko man haza ana koy kii fal yu sàmmi na tudd nafsahoo boppam bismihi ca turam wa aw bi maa wala ci la nga xam ne yoon rax fu def na ko xamee bihii ci moom mi nga kuniyati ci dàkkental wa wala yaqul te du wax ne ana man rek boo yëgloo ñu ne la kooku ngay wax mën a diw jaar ci jaar ci saw tur te bul ne rek man a man a mbaa boog nga wax saw dàkkantal wañ lay xàmmee ba tey ñu bañ a fàtte ne bu dee gone wala muy sa bëkk néeg wala muy mbindaan am na yetti waxtu yoo xam ne faaw rek balaa dugg ci kilifaam wala bu dee gone balaa dugg ca néeba na yëg lu njëkk mooy waxtu tërute mooy waxtu wi ñuy summi kuy tëdd ak waxtu yeewu ci suba ak waxtu nit ki summikoo ci bëccëg bi delloo buntam di noppalu yooyu jamono bu dee gone wala muy ab bëkk néegam wala muy mbindaanam na yëg lu njëkk te bañ a jekki-jekki rek dugg lu bokkut ak yetti waxtu yooyu nag ñoom ñi ñoom mën nañoo jekki-jekki rek dugg te bañ a yëglu wal musaafaxatu saafuxante xasanatun aj rafet la saafuxante mooy joxante loxo nuyoo bi moom mooy wax gi asalaamaaleykum ak waaleykum salaam ca làmmiñ ya joxante ngay loxo nag ku ne jàpp ci déngal moroom sopp nañ ko lool te dañoo bëgg buñ joxantee loxo ñu téye ab diir ba ku nekk wax asalaamaaleykum ba daaneel te bañ a gaawantu joxe sa wax daa koy rocc fa saasay saasa loolu sib nañ ko waaye nag saafuxante joxante loxo googu kat dañ ko sopp ci diggante góor ak góor mbaa diggante jigéenu jigéen waaye góoru jigéen bindee ay jaambur nga xam ne mën nañoo sëy kon day araam ñu joxantey loxo bu fekkee nag ay araamante lañu mooy mënuñoo sëy nag moom mën nañoo joxante loxo sax waaye bañ ngaa joxe loxo moo gën ba tey nag ab yéefar bëgguñu nga di ko nuyu jox ko loxo te ab yéefar boo ko dee nuyu doo wax asalaamaaleykum loolu jullit lañ koy wax yéefar da nga koy wax asalaamu ala man ittabaxal huda yàlla yàlla defal jàmm képp ku tuub aw ci njubam gi ne wal muhaanaqatu doqonte ga makruhat lu ñu sibla inda baadihim fa lenn ca ñoom nee nañu nag daa waral na leeral ne inda malikin radiallahu anhu ndax malik ci boppam moo sib doqonte doqonte mooy tegantey doq ndax malik ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mennum jaafar rek la ko masa defal te gannaaw ba gisuñu saxaaba yi di ko jëfalante mooy di jagantey doq moo tax moom mu sib ko wal xublatu foon fil fami ci gimiñ min rajuli tukkee ci góor ila rajuli jëm ci góor laa ruxsata déet genn yolomal fiihaa muy nekk ci moom góor ak góor ñuy fóonante ku ne jël sa gimiñ teg ci sa gimiñu moroom daal taamuwuñ ko man nga ne sax benn lu araam la bu fekkee dañ caa jublu bànneex mbaa luñ sib la bu fekkee jubluwuñ ca bànneex faslun li ab daw la tashbitul xaatisi ndokkeel aji tisli waajibun aji war la karaddi salaami niki fay ab nuyoo wa huwa moom alxawlu mooy wax lil xaatisi ñel aji tisli ja ne ko yarxamuka yal na la yërëm allahu yàlla wa jawaabu woote tontam mustahabun lu ñu sopp la wa huwa moom xawlul xaatisi moo di waxuk aji tisli ja ne yahdiikum yal na leen jubal allahu yàlla wa yuslihu te mu yéwénal baalakum seen mbir awala mu ne yaxfir yàlla jéggal allahu yàlla lanaa ñeel nu walakum ak ñeel leen wal jamhu te boole ga baynahuma seen diggante afdalu moo gën ku tisli gannaaw bu sante yàlla kon nga ndokkeel ko fardu kifaaya la nga xam ne bu kenn tisli woon sant yàlla te ña fa nekk kenn ndokkeelu ko daañu am bàkkaar bu ko kenn ndokkeelee rek nag moom baax na ñi fay am nuyoo mel di fardu kibaay rek noonu la ndokkeel ku tisli gannaaw bu sante yàlla mel ka tisli day wax alhamdulillah sant yàlla ndax da ciy boole rabbil alamin am dayam rek ci sant yàlla ibnu masud ne da cay boole rabbil alamin kon say boo topp jooju wax ne alhamdulillahi rabbil alamin tatis bu waxee loolu ndokkeel ko mooy nga ne ko yarhamukallah yal na la yàlla dolli yërmande daañu sopp nag moom moomee tisli ba ñu ndokkeel ko mu ñaanal ka ko ndokkeel ne ko yahdikumullahu wa yuslihu baalakum yal na leen yàlla jubal gindi leen te yewénal seen mbir mbaa mu ne ko yaxfirullahu lana walakum yal nanu yàlla jéggal te jéggal leen mbaa mu boole wax ko yaar yépp wax ko yahdikumullahu wa yuslihu baalakum wax ko it yaxfirullahu lana walakum wala yushammatu deful ndokkeel alxaatisu aji tislija xataa yaxmada mbate mu sante allah yàlla ku tisli bala nga koo ndokkeel da ngay bàyyi bam sant yàlla waaye bu tislee ti waxul dara moom ah kon bul ko wax dara te it ndokkeel gi ci ñett rek la yem bu tislee nga ndokkeel ko mu tisliwaat nga ndokkeel ko mu tisliwaat nga ndokkeel ko muy ñett bu tisliwaatee yoonu ñeenteel da nga xam ne kon daa soj nga ñaanal ko yàlla jàmmal ko wéral ko wala yaxillu du dagan li muslimin ñel ab julit ay yaxjura mu tong axaafu mbokkam ma fawqa salaasati ayaamin lu kawe ñetti fan kenn sañ te jàmbu sa mbokkum julit bañ koo tudd bañ koo taas lu ëpp ñetti fan waaye loolu nag mooy bu fekkee la tax nga di ko jàmbu sa wàllu bakkan dong la kon moom duñ la may nga weesale ko ñetti fan daañ la may nag nga jàmbu ko ñetti fan ndax doomi aadama yàllaa ko bindee noonu waaye bu fekkee si wàllu bakkan dong la bu ñetti fan ñamatee na nga daal di gaaw nuyu ko waxanteeg moom te jubloo jeexal tongu maanaam jàmbu gan ko jàmbu woon bu fekkee nag la nga ko doon jàmboo ko tongoo du sa wàllu bakkan wàllu yàlla la ni ki day koo yilif te muy jàdd yoon bañ a jëfi ndigal ni ki bañ a julli ba def leneen lu aay wala muy sa soxna nga bëgg ko teg ci yoon te mu gàntu mbaa muy sa doom ak ñu demee noonu mbaa muy ab sëriñ akub dongoom yépp moom jàmbu ga ngir yàlla moom mën naa yàgg mën naa wat weer mbaa ñaari weer kem rek lay tax kooka wàññiku wéy ci ndigal waaye nag bu dee si wàllu bakkan dong daal moom bul jàmbu kenn lu ëpp ñetti fan bisu alxames ak bisu altene dañuy ubbi bunti àjjana yi su ko defee yàlla jégal bépp jaam boo xam ne ab jullit la te bokkaali wutal yàlla dara waaye nag ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo tongoonte seen diggante am lu fa dox ñu ñàkk a déggoo su borom day wax ne ñaar ñi moom ñaar ñi moom bu ñu leen jéggala gun nañu bàyyi ba ñu yëynoonte ba ñu defaroo loolu nag moo tax kon ñu bañ jàmboonte di am ci diggante ñaari jëmm ci seen wàllu bakkan dong lu ëpp ñetti fan wala yata naaja du déeyaale isnaani ñaar doona waahidin ci lu dul kenn nee na ñaar di déeyaale bàyyi kenn moo xam dañoo nekk ci tukki moo xam nekkuñ ci tukki bu fekkee kooku dana ñaaw jort ne ci ay mbiram la ñuy déeyaale kon moom day araam ñoom ñaar ñooñee déeyaale ba ñuy déeyaale ñoom ñaar ñiy déeyaale nag bu leen wóoree ne kee moom di ñaaw njort ci seen déeyaale bi kon dañuy sib rek déeyaale ga ñuy déeyaale bàyyi ko